ñetti junni professionnel lu jëm si wàllu wérgu yaram di ay biologiste dentiste pharmacien ak li ni mel ñu booloo si kuréel bi ñu tuddee collectif des médecins pharmaciens chirurgiens dentistes en spécialisation ñoom nag dañoo daal di déposer ab préavis de grève si taabalu ministère de la santé et de l'action sociale. bi nga xamante ne moo gën a moo ñu gën soxal mooy euh, bourse yi nga xamante ne moom la ministère di jox ñi war a spécialisé wu. ñu gis ni ren ministère daf ko bëgg a wàññi ñu ne nag loolu d'accorduñu ci ba pare bokkul ak li ñu tënkoon ci réunion de commission. bu weesoo loolu commerce mu ngi ñaaw ñaawlu itam. lii di lenteur administrative yi ñu nemmeeku. beneen affaire bi mooy lenteur yi nga xamante ne dañu ko gis ci li soxal euh, wàllum stage rural yi ñooñu léegi mu mat un an kenn fayu leen seen prime de stage rural parce que loolu depuis deux mille vingt deux la woon beneen bi aussi. bokk na ci lanteur administrative yi de manière générale surtout ci paiement bourse yi. yi de docteur en spécialisation. di ñaawlu itam beral loxo bi nga xamante ne. ministère bi beral na ko. ñu bàyyi ko foofee ca bitim réew. te nag mu bàyyi fii ay doomu sénégalais. Euh, booy xool tey euh, wax naa ko sànq ma ni ñi nga xamante ne ñooy inscrire ci formation spécialisée. doomu sénégalais yi néew nañ ci trop trop trop trop trop que boo xoolee sur deux mille cinq cent ñu nga xamante ne dañu inscrire ci formation spécialisée sénégalais yi ëpp ñu aar ça veut ñi ci des yëpp ay étranger lañ mu doon loo xamante ne ñun dañu jàpp ne perte la pour état du Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba Faye ak ay ñooñam fas yéene wu ñoo yem fii li ñu nar rek mooy woyal bi lee xeex ba am si li ñu bëgg ci nu mu gën a gaawee.